année mu doon ñaari tête tête de liste ak tête de liste man seen doom Ibrahima Ibou Cissé Pape Cissé maay jiite tête de liste majoritaire bi suma rakk suma xarit suma doomu ndey di Pape Ibra Diop docteur Pape Ibra Diop moom mooy jiite liste propor euh, bi. équipe tête tête de mooy mooy mooy nekk maire mais li si ëpp importance mooy équipe la ñuy demee man maay candidat bi man maay candidat bi man maay jiite tëdd de bi mais li may wax toujours équipe benn nit mënul defar Mbàkke ab maire kese mënul defar Mbàkke maire boo xam ne amul lu nekk ci ginnaaw mënul defar Mbàkke te gëm naa ne xam naa ne ñi nekk suñ ginnaaw am na ñu fi nekkul parce que ñi ngi fu ne Sénégal yëpp am nañ xam-xam bi am nañ bëgg bi te am nañ yéene bi parce que nit ki des fois di nga am xam-xam te doo am yéene ñi ñi àndal am nañ yéene bi am nañ xam-xam bi pour ñëw defar Mbàkke te incha allah rabbi su ngeen ñu joxee confiance 2027 dina am changement yu bëri Mbàkke incha allah. car Mbàkke lañ doon wax ñun bi ñuy gën a nekk ndaw Mbàkke amoon na fu mu tolloon mais plus ñuy dem dëkk bi dafay rétrogradé di gën a arrière. nous on pas des nihilistes c'est-à-dire bañuñ ne nit defu fi dara mais dañ ne liñ fi def war nañ ëpp am nañ capacité yoo xam ne war nañ dépasser liñ fi def donc suñu diagnostic nag def naa ne Mbacke xale bu ndaw boo yee sax mu wax la lan mooy jafe-jafe Mbacke ñun suñ communication nekkul ci non Mbacke dafa am problème lii Mbacke dafa am problème lii parce que loolu dama naan dépassé nañ stade boobu suñ communication aujourd'hui mooy yan solution la ñuy apporter tey des et des solution durable pour ñun transformer suñu dëkk parce que il et important c'est important aussi ma préciser ko ñu bëri suñu suñu suñu suñu mbëbët mooy transformer dëkk bi mais pas nous transformer parce que xëy na am na ñi nga xam ne ñoo ngi xëccoo maire parce que am na lu nekk ci ginnaaw am na lu ñuy wut ak et cetera loolu dafay nekk loo xam ne dañ koy gis mais yàlla ñuy sutural li gën a importance mooy tey suñ challenge sunu objectif tey mooy ñu changer dëkk bi te gëm naa ne war nañ ko mën a changer. ñun dañu won waa Mbàkke ne y a des solutions et yi moo ngi tàmbalee ak projet Mbàkke dimb ci kanam Mbàkke dimb ci kanam tey ñi koy suivre gis nañ ne wàllu hygiène wàllu mbalit wàllu éclairage loolu lépp c'est réglé parallèlement au-delà de ça fay nañ salaire. ñoo ngi fay ay salaire c'est-à-dire jeunes yi fi nekkoon doon chômer amuñu woon xaalis ñoo ngi permettre di leen fay ay salaire fii tey y a autant de mouvements te damay rappeler aussi y a beaucoup de mouvements yoo xam ne aujourd'hui ñoo ngi accompagner ci li liggéey mouvement yooyu tey dynamique bi ñu nekk ak ñoom cest à ñu changer paradigme changer paradigme mooy lan tey ñu xam ay opportunités yoo xam ne dëkk bi daf ko am ñu war mën saisir opportunité yooyu opportunité yooyu mooy lan tey financement suñuy toog naan non war nañ toog dem wuti banque financement wala non li ñuy wax financement participatif tey je pense que exemple boobu wane nañ ko tey Mbacke dimb ci kanam te dinañ ko gën a yaatal financement participatif participatif boobu mooy tey yow da ngay am benn projet au lieu ngay toog naan damay dem wuti sama financement muy jafe lool ma yaatal projet bi ne sa waay jox naa la 10 pour cent yow 15 pour cent mu doon ay genre action ñu dem loolu dina régler problème financement bi te loolu. gëm naa ne dina réglé lu bëri tey jigéen ñi nekk ci ay mbootaay dañuy am yenn saay ay fonds de caisse yoo xam ne day xaalis bi day toog ñun ay xam sun sun xam-xam dafa màcc ci loolu xaalis buy toog rek mooy maanaam liggéey bi des na xaalis boobu tey war na leen mën a jural leneen leneen mooy lan tey ñaata activité moo fi am Mbàkke ñaata événement moo fi am Mbàkke tey xaalis boobu war na leen mën permettre tey ñoom ñëpp ñu commencé di développer ay ay ay activité commerciale su weesee loolu wàllu santé parce que soo réglewulee wàllu hygiène cest à ñu jël mbalit mi xool fan lañ koy def parce que Mbàkke ngi yaatu fi nga xamoon ne yëpp ay mbalit la tey ba léegi Mbàkke kër yaa ngi dépassé yooyu donc il est important que ñu xam tey mbalit yooyu suñ ko jëlee nan lañ koy def ñoo ngi ci projet boo xam ne ñoo ngi siy xalaat ak des partenaires avec des indonésien ñu xool tey mbalit boobu tey naka lañ koy récupérer transformer ko suñ ko transformer ay déchets la tey chaise plastique yi bâche yi et cetera même tey fer yi mën nañ ko jël def si ay baies vitrées jigéen ñi ñeneen ñi di si def ay tëgg donc y' a de possibilité sans tenir compte l' bi ñu si mën a jël parce que xam nañ ne dëkk bi naaj bi tàng na loolu seen est opportunité boo xam ne war nañ mën capter de l' énergie solaire donc yooyu c' est des projets yoo xam ne ñoo ngi siy dox wàllu éducation éducation dafa nekk lu am importance te je pense que am na benn réunion benn interview moom bu ma defoon ak yow. ma ne éducation ay jafe-jafe la jafe-jafe yooyu il faut que ñu dugg dans le cadre de l'intercommunalité parce que statistiques yi dañ montré ne effectivement euh, nombre d'élèves yi jóge Touba bëri nañ te maa ngi naan sëñ Mountakha bi mu si dugalee loxoom man ci laa génn ci loolu xam naa ne dina saafaraw donc dinañ fexe incha allah rabi xool nañuy nan nanaka la ñuy doolelee lycée yi fi nekk parce que benn lycée ak xaaj damay wax benn lycée ak xaaj moo fi nekk parce que beneen bi daanaka encore y a beaucoup de choses à faire école yi tamit dinañ xool naka la ñuy doolee classe yi naka la ñuy accompagner parce que dolli classe yi ñun dañ ko tàmbale te jotaguñ dara jotaguñ dara mais tabax nañ classe donc ni ñu ko tabaxee def naa ne toujours ça montre encore le financement participatif ça marche suñu réglé loolu problème éducation bi ñu ñëw problème santé bi problème santé bi euh, xam nañ ne euh, jigéen ñi am nañ ay jafe-jafe yu bëri bëri moo tax la dernière fois maa ngi doon développé conceptu nijaayu gox parce que dañ naan bàjjenu gox baax na lool mais góor ñi tamit c'est important yenn saa yi ñuy wax ak ñoom ñu jàppale jigéen ñi parce que suñu jàppalee jigéen ñi ci la kër di neexee ci la njaboot gi di féexee ci la xale yi di am jot di jàng mais su jigéen feebaree kër gi du neex xale yi duñ jàng kenn du leen toppatoo loolu tamit commencé woon nañ ñun déjà ay dépistage du cancer mu doon feebar boo xam ne feebar bu métti suñ defee loolu ñoo ngi waajal une deuxième édition aussi pour loolu donc jàppale aussi wàllu santé wàllu santé nit ñi ñoo ngi sant bu baax tey bi waa Mbàkke tijjee seen xar kanam ne effectivement tey santé dafa nekk lu important ci nit loolu tamit ñun am nañ si ay xalaat yu bëree bëri te ñoo ngi siy taxawal ay projet yu mag a mag xam nañ ne tey hôpital bi fi lu ma ne hôpital sax dispensaire bi fi nekk suñ premier challenge par rapport ak li nit ñi di wax ñun suñ premier challenge mooy relever le plateau il faut que ñu relever le plateau loo gis démarche la tey sur le plan carte sanitaire fu Touba amee ñetti hôpital Touba am na ñetti hôpital lu mu bon bon bon ak hôpital bu bees biñ tabax je pense que il faut pas que nit ñi tamit naan dañ bëgg hôpital hôpital tey ñun suñ objectif mooy lan mooy relever le plateau naka lañ koy relever am nañ possibilité yi xam nañ fi ñuy war a jaar xam nañ espace yi ñu war a récupérer yooyu yëpp pour taqale ko ci euh, district bi fi nekk ñu relever hôpital relever plateau médical bi fi nekk bay tax ne tey ku jóg war a dem ci hôpital bi matériel bi nga xam ne ak nit ñoo xam ne tey dinañ la mën jël en charge lu weesu loolu dafa nekk dëkk boo xam ne dañ am ay activité phare ay activité phare lu mel ni ay màggal màggal bi damay wax euh, dix-huit jours la daanaka parce que su safar duggee rek màggal bi dugg na loolu tamit xalaat nañ si ay projets yu mag yoo xam ne sur le plan économique ñun retombées yooyu incha allah rabi Mbàkke dina ci bénéficier